yow bi bëgg tisi bu rafet wala nga yor boutique bëgg a jënd jaayaat demo Pikine marché yaa ngi fekk fo waa Njaay Jesner. bi ni baxa bi ay cristal la. rafet na fess na motif bes tak la aussi jaune or bi amna ay couleur yépp bi rouge sang bi la mais motif yi bokul tisi ba paré per du ben bi ni moy mo champagne couleur bu rafet tamit bu tegu ci temps ni moy ci tiktok motif bes tak la. bu blazer ak musor col bi mo nek ni pari vache bees la. li ci bëgg rek defal teew fii ci Ndiaye Disney. yooyu nag nii ay 3 mètres ay 4 mètres ba 5 ba 6. lii mooy Disney super magnum gold bi. laser 1 mètre 60. sa dessin yi rafet na trop. reew na ay couleur yëpp ay couleur góor. ñuy door mant la ñuy góor ak jigéen ñuy maabo sax. unisex eh, la góor ak jigen ñepp sol campagne foncé bi moo nekk nii mbagé riche ak mbagé noblesse tam am nañ ko lii moy noblesse du doy ni tamit moy jesner wifi bi moment bi la wàcc côté gi mom lañ ci wajal ni am na couleur yëpp ay góor ak jigéen yëpp côté jigen yi tam am na ay brode pirxa ay brode la faya yëpp ñoo nek ni ajar bi la deuxième combat bu sana عبد الله خويا وعنده رجله السيس Thank you. Ndiol plaqué na ko Ndiol daan na ko daa mel ni daa blessé